asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant maa ngi leen di nuyu fii ci Touba Fall dëkkub Serigne Ousseynou Fall dëkkub Serigne Ousseynou Fall maa ngi leen di nuyu leen baal àq leen balo àq leen jéegulu it ci ndaje mi ni fi daje ñu woo leen wuy sinu ci kàttan yàlla baax bi yonte bi barke Modou Mamoun Fall ak Seynou Fall lépp nag nu sant doolee ko sant rek sëñ Modou Mamoun Fall ndax lu jiin njaaga ci mooy njaag maam Seynou sant waaye nag ni mu demee ak fi mu yëggit Modou Mamoun na ko fa yegg rek njabootam wax dëgg yàlla moo ko fa yeggale kon nu doole leen sant te ñaanal jàmm ak xéewal xam ni déggoo gii ñu déggoo it yoon yàlla yoon sëñ bi demee nu ko kanam kon nu ko fulundeel ba mu kawe suñu jor yàlla defal ne jàmm defal ko njabootu Modou Mamoune Fall déggoo gi ñu déggoo njaboot gi ak njabootu Mamoune Fall yàlla na jëm kanam yàlla yokk xeewal gi ak wéere weer li kon gudda mujj ga rafet salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit di ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñuy sant yàlla bu baax a baax bi mu dogalee ñu fekke guddi gi nga xam si ni moom lañ fa yéene màggal ki nga xam si ni lu yàlla bind moo tax di Seydina Muhammad sallallahu taala wa ñu fa yéene màggal guddi gi fii ci tubaafal Fall ànd nag daayira nuuru daayira ni bu tubaafal njiit li di Cheikh Mbacke Diop ànd koog Kanzul Muhtadin di nga xam si ni ñaari daayira yi dañ koo lëkkale nuuru daayira ni ak Kanzul Muhtadin jëwrin général ji ji sëriñ Basiru Mbacke nin ko xamee rek at mu nekk rek ñun ñoo yor commission d'organisation bi nga xam si ni lépp lu jëm ci guddi gi ñun ñoo koy taxawee organisation bi loolu nag ñoo ngi ci sant yàlla bu baax lépp nag sëñ Basiru Mbàkke la bëggam lu baax moo tax mu taxawal ñaari daayira yi ñu ànd saa yu bi dikkee ñu nekk ci liggéey bi ba lépp jàkk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokk jullit ñi ak mbokk taalibe yëpp di jiital ci nuyo bi Mouhamed Dan Fall muy suñu kilifa di ci teg euh, jëwriñam Modou Fall mi nga xamante ne si mooy jëwriñam di jël liggéey bi yëpp teg ko ci loxoom gannaaw loolu nag ñoo ngi wax ci turu daayira bi Kanzul Moxtadin ak Nuuru Daarayni ni ko sëñ Cheikh Mbacke mi waxee Cheikh Mbacke Diop di wax ni ñun moom ay ndaw lañ yoo xamante ni si liggéeyal suñ Tuubaa ñu ñor ak def lu baax tegu ci yoon te ci loolu ci loolu la ñu yar loolu lañu xam taxaw ak nag suñu baax ji di alsan di mag euh, bokk ci daayira bi dañuy woon yoon ànd kook ñoom bàcc ma sàmba moo alaaji ndaama ñoom ñëpp ñu doon ay gone yoo xamante ni si lu baax rek lañ bëgg lu baax rek moo leen ñor ànd ak ñoom liggéey bi nekk ci ak ànd kook euh, euh, waa Nuuru Daare ni Cheikh Mbacke mi tamit di jëwrin ji moom ñoom sañ Amaat ñoom ñëpp bi mooy mun naa ni biñ boolee daare yeeg léegi mu ngi soog def ñeenti at ci at mu jot rek bu ñëwee daanaka lañ defoon suñ borom euh, defal ñu loo xamante ne si day day gën a kawe suñ njor mooy comme ni koy comme niñ ko waxee rek nit moom boo newee ci lu baax rek saa su ne da nga cee am ndam dafa fas yéene nañoo nekk ci lu baax di di di nekk ci liggéey bi liggéeyal sëñ Touba ci dëkk bi comme ni ko sëñ Aliou mbay waxee tey suba taarixu dëkk bi ku ne xam ne dëkk bi ba koy di sanc liggéeyal suñ borom rek moo taxoon mu def ko te dëkk bi ku ne xam ne tamit dëkkub sëñ Touba la kon nag ñun ñu buñ doonee ay ndaw nekk ci dëkk bi li nga xamante ne si mooy jom ak fulla ak ngor mooy kon nañ tegu ci lu nañ tegu ci yoon nekk ci lu baax comme ni ko sëñ Tuubaa jàngale ci téereem yëpp waaw nekk ci lu baax wax ci wax ci lu baax tey gën a euh, boole njaboot gi ñëpp doon benn te xam naa ni loolu fi mu doon nii suñuy kilifa ñëpp ñoo ngi siy jàppale parce que alsaan mii ngeen di gis daanaka moo ñu mag fop suñu nijaay la waaye boo gisee ñoom ñëpp ñu bàyyi lépp ñëw bokk nekk ci daayira bi da ci def seen seen xel ak seen doole ak lépp lu ñu am waaw kon loolu euh, sant yàlla la kon nag ñun gën nañ ñoo soññ li may wax rek ñun ndaw ñi nga xam te si ñoo ñoo gën a féete ndaw niñ gën a am fulla gën a am jom gën a am ngor te gën a nekk ci liggéey bi gën see jàpp gën see gën see def def ko def ko suñu lépp ndax gëm naa ne lii mooy suñu buntu ci Sëñ Tuubaa waaw nañ si nañ si nañ si gën a farlu kontaan nañ nag lool wax dëgg yàlla gis nañ liggéey bi gis nañ taxawaay bi gis nañ tamit gone yi waa Touba Fall ni ñu takkuwee nekk ci liggéey bi ànd kook ñoom Cheikh Abdou Lahad mii nekk Dakar ak sëñ Birane Diouf ñu doon ay jàmbaar lool ci liggéey bi boobu ba léegi bàyyiwuñ ak sëñ Xaadim Fall bu Pape Baara ñoo leen sant ak mbooleem képp koo xamante ne si rek ñoo ngi ci daare bi Kanzul Muhtadin ak Nuuru ni ku si nekk nag moom wax dëgg yàlla ñoo ngi lay bàyyi ak sëñ di di di la di la gën a ñaax nañ gën a jàpp nañ gën a jàpp te te it nañ xam ne yëf yi ñoo ko moom nit nag moom li nga moom waroo xaar bañ indil la ko da koy jëlil sa bopp nga ko am ci fulla li may wax rek nañ am fulla ci lu ñu nekk mën a dëggu si nit boo nekkee ci lu baax ak lu jub waroo ragal waroo ñàkk jom waroo ñàkk fulla kon nañ gën a am fulla gën a am jom gën a jàpp ànd ceeg fi du mat sëkk dañ xam ne ci lu baax lañ ne ndax xam naa ne ñu newee ci lu baax suñuy mbokk su suñuy mag ak suñuy ndijaay ñoom ñëpp ci lu baax dong la ñuy dox dinañ gën a jàppale waaw kon xam naa foofu laay yemale samay kàddu tey moom wax dëgg yàlla bis la boo xamante ni su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sëñ bi amul lu dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lu waaye di utit ci yonente bi nga koy nga koy wutee kon ñun nañ gën a nañ gën a nañ gën a farlu gën cee nekk comme ni koy comme ni koy gars yu baax yëpp di waxee nañ ci nekk rek jàpp ci suñ borom moom mooy borom kàttan mooy borom lépp te mën na lu ne buñ góorgóorloo nekk si suñ borom mën nañu koo defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib ñoo ngi fii tey ci dëkk bu màgg bu tedd muy Touba Fall Mboxeer toog ak jëmm ju tedd muy sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abdul Baaxe Mbàkke moom sëriñ Masamba mu ñëw fi nag ci ndigalu waajuram la ko waajuram jox ndigal boole koog sunu waajur alaaji Ndaama Faal mu taxawe nekk imaam ci dëkk bi di jiite tëbaski ak korite ak lépp rek loo xam ne taxaw na ci wàllu diine ñu jiital ko fii ci ndigalu waajuram kon bu ko defee ñu ngi leen di bàyyee kàddu sëñ bi mu am kàddu yu muy waxtaan ak yéen rek bisimilah bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu fu jullit mën a ne ci kaw suuf rawatina ñi féete senegal rawatina ñi nekk ci dëkk bu tedd bi di Touba Fall Mboxeex di benn pàkk ci pàkki Serigne Touba yi radiyallahu taala anhu mm, kenn ci njabootam yi sancoon fi ci digalam muy sunu maam Serigne Ousseynou Fall mu mm, boole woon kooku ma sàmba kon mel na ne sababu sunu ñëw fii foofu la sababu la soqi ni ko sëñ As waxee ndigal li ci suñu wayjur la jógee sëriñ Abdul Baax yi waaye li lan lépp nag mooy diine mooy lislaam rek ndax sëriñ Ousseynou mi tëdd fii ak sëñ Massamba mi ko sëriñ Touba booleeloon ñu àndoon di taalibe sëriñ Touba ne ci ay ndigalam di liggéeyal yàlla njabootu sëriñ tubaa di fi ñëw lépp lislaam a ko lal kon kàddu yi nuy yëkkati ci foofu rek la tegu. Euh, li tax ñu di ko yëkkati yit nag mm, dañuy waajal tàmbali liggéeyu bis bi bisub sang bu tedd bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xayrul xalqi nga xam ne ni ko Sëriñ ba waxee ci jasbul xulóob di wax ne sant ñeel na sun boroom ñeel na it mm, sant it war nanu ci alxuraan ji nga xam ne moom la ñu ngën jimbi ne moomu indil muy alxaqul mubin ànd ak mbooleem xeeti xéewal yi nga xam ne suñu boroom xéewale nañu ko tamu laaj sant kon yaakaar naa ne ki nu yàlla baaxee ci bis bii dara gënu ko màgg ci xeeti xéewal yi kon ñu ngi koy sant ci sunu xol di ko fas yéene sant ci suñu cëri saaxir di ko sant ci suñu làmmiñ di ko sant ci anam bu doomu adama mën a sant xéewal rek tey ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu nangul nu cant gi kàddu yi nag euh, dañ ci jublu rek euh, xam ne tuuti ci li nga xam ne moom lañ fiy taxawal ak bu jot muy fàttaliku ak delloosiwaat ak jàngaat jëmu ju tedd joojoog jikkoom ya ak taxawaayam ya ak njàngaleem ya ak ndigalam ya ak sunnaam su leer sim nu bàyyee woon di ko fàttalikuwaat di ci jàngaat di ci gën a delluwaat mooy sababu daje fi moo taxoon bay ndaama ca Pastef ba ci bëgg lu baax ci bëgg lislaam ga mu ne woon daawut du wut bis moom bis bi nga xam ne daal mooy bisu ki gën ci bindee fi mooy bisam lépp rek mm, di wane ak bëggam lislaam ak bëggam lu baax ak bëggam njabootu suñu borom gépp te mooy bindee kon sunu teewaay fii loolu rek mooy sabab bi eh, li nga xam ne moom moo jëkk ci bis bi nag muy alxuraan ndax Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu eh, alxuraan moom mooy alalam mooy ndaxañteefam kanzil kitaabu wal xadiisu laa jaamu fiddatin wala jaamu zahab sama magasin maanaam bu ma amee lu may denc bu ma amee lu ma fonk di ko làq alkitaab la wal xadis xadis rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye laa jàmmu fidda wala jàmmu zahab alxuraan jooju nag moom lañ fa yéene ubbee bis bi ni ko bàyyi ndaa ma bëggee woon ndax su ma saan ñëw ca yéene ju màgg ja ca pas-pas bu dëgër ba ca bëgg gi e, yiw wiñ fiy def wiñ fiy sabablu yëpp suñu borom jotal ci kilifay lislaam yëpp daraan wax ne nañ ma jàngalal kaamil ngir hadiya rasulillahi nañ ma jàngalal kaamil ngir saxaaba yi nañ ma jàngalal kaamil mm, ngir sunu maam ju baax ja sëriñ tubaa nañ ma jàngalal kaamil mm, kilifay diine yëpp nañ ma defal kaamil noonu la koy toppee di ko lim di ko lim ba naa daanaka doo mën a xam sax moom ni mu ko daan limee loolu lépp di wane rek ne moom déggoon na li nga xam ne moom la Serigne Touba doon jàngalee. te loolu jóge ci ki ñuy fàttaliku tey jii rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy waaj ngir tàmbali liggéey boobu moo tax ñu doon jottali kàddu yi ngir rek bokk yi gën a mën a xam euh, li nga xam ne moom lañ fiy def si liggéey bi ñu fiy taxawee yal na lu ci yàlla dimbale moom mi am dimbal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-azim sëriñ bi maa ngi lay delloom nuyoo ak ab siyaar ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi nag sant Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ahmad Samba ak wayjur yi dëkk bi e, li ko sos lii dañu ko dégg lii dañu koo fekke mu mel ni kon ñetti étape la bi ci jëkk mag ñee ko fekke fekke wuñ ko waaye mag ñi ko fekke doon ko dund ak sëriñ Waseynu fekk nañ leen fi at yu baree bari ndax nit moom bu fekkee ba mu lay wan gi ginnaaw fekk na nga samp kër ba ak njaboot nuyu la kon dund nga moom lu bari boobu mooy bi ñuy dégg bi ñu dund ak mag ñi ba fii ñu toog di wax te yàlla bàyyi ñoo suñu xel liñ ci fàtte bariwul dëkk bi daal bi muy tudd Touba Fall sëriñ Wassou noo jóge dem ndànd taax jëndi kayit gum àggale kaamit bu mu doon bind mu manqué ba mu gisee mbooloo may dem grand ndànd di siyaari maam Cheikh Ibra Fall mu ne lu xaw fee ñu ne maam Cheikh Rafaala fa ne waaju baax waaju baax lay wër mu yor kaam kayit ga ñëw dugg si nuyoo bi mu jàkkaarloo maam Cheikh maam Ousseynou dafa defa nit ku jëm ku fes bi mu nuyoo maam Cheikh Rafaala ne ko jàkk ne ko fan ndongali faali fan mun ko faali saw jant mu ne ban dëkk mu ne mbuxeex faal mun ne ko baa jàmmaloon mu ne ko dama jënd si woon kayit di bind kaamil ndax kaamil bi daa manqué woon may jënd kayit Eh, gis mbooloo mi ñëw di siyaare ma ne naa ñëw siyaar na mun ko a ah, Fall bind kaamil baax na de waaye boo seeti woon saa waajam gën fee baax mun ko kuy sa waay mun ko Seex naa Seex Ahmadou Bamba mu ne anam mun ko mu nga ci yéen ci Jolof mu daal fekk na mi ngi feggoog benn bras droit bu ñu wax maam jóob Diop sow sant dinaa wax sëñ Massa mu fekk la fa ak sëb cër mu ñëw nangul dugg ci fanaan ba fajar ba mu xëyee taalu nit ñi seen taal bi ñu ni kee naar bi jaay coggale bi ñee ñu seet ko muy moom ñu ne a ah, kii de moom yegg na fa mu jëm koo can say bokk sa kër dem ñëw di taal nii ci àll nanguwulaa dugg ci dëkk bi kon yegg na fa mu jëm ni daal ñu defee da caa jëlee euh, ak réer te fekk leer la fa jëlee bi ñu bi daa yaboon bind nag day bind rek xale ma gi jooy rek nit ñi daal di mu wax mun dama bëgg a sanc fii rek mu daal di ànd mag ñi doxantu di xool mandargay dëkk bi te xaar gi mu njëkk a jot daa jige weesu na gi ga ca topp daa sori ci tajtal bi ko sëriñ bi jox bi mu dëppaati na ba delsi ba ci pénc mi la gis daqaar gii ci buntu kër Modou Mbacke mu nekk daqaar gu ndaw te fekk sang bi noonu na ko daqaar googu paq ba féete gànjool dagg nañ ca bant te jibbeegul na nekk ci pénc mi mu ne ko lii kat daqaar la rëyul da bàyyi daqaar la ñu xool mu ni baax paax bi dañ ko dagg te jibeegul ñu ni kon fii la kàdd gi daal di ne ci góos gi ne ci saw muy yetti garab yi di wasi cin ñu daal di bay di léemu ñii di bay ñii di radu ñii mbaar ñii indi néeg bu ndaw néeg bu amul xadd may ko ñu wutim ñax ñëw di xadd daal sanc xam nga du yomb ba mu amum néeg ba am ñaari néeg bam ñetti néeg ba mu xëy nekk daara fu ne donga di fa joge nag fu ne turandoo di fa jóge taal bi riir di riir ba mel ni moo gën a yaa ngi taal yu bari ba bi yàlla dogalee mu làqu nag xam nga kilifa buy door a làqu tam wuutu ko day jafe ba ba léegi si léeg-léeg nga dégg ñu ni diw ndax des na ko mën a wuutu foofu njaboot gu mu bàyyi ñi ciy dund xaw nañoo ndawe bañ yaakaar ne at nañu ab yenam mu xaw am rëng-rëng yi jamono rek waaye samp yàlla moom xam nga du gent biñ ko defee nag ci noonu ci gàttal comme da nga ko bëgg ma tënk ko eh, mag ñi des fi dëpp ci néegum ñax di ko siyaare bu korite ñeeg tabaski nun ñëpp fàtte ko nag bu ñu fàqee ngeen bañ samp ci jullikaay bu jullee woon dañuy dem ñu siyaar ñaan mag ñi dañ ko collectiré woon traditionnel ay jana yiir xëy mooy mooy collecteur bi comme li alaaji ndaama def ñun ay bant yiir la ko mag ñi defoon ndax boobu mooy rek am néegum ñax bi nag biñ ko ko defee ba jëmmi jamono am na sang bu ñuy sañ moo Modou Faty Khary mu ñëw fi di ko siyaare ñëw fi tournée di siyaare dugg rek xadd ji jam ko nii mu xool xadd ji sutti ko mu ni mag ñi man de du ma ni lenn waaye sëñ Ousseynou ni ngeen ko defal war maam ëpp na loolu war maam ëpp na loolu te jàpp naa ne nu ngeen ko taxawoo rek ne la dëkk bi mel mag ñi daa di cotiser ñii ñaari andaar ñii benn àndaar ci gerte jiwu ñu bayal ko tool nag bi ñu bayal tool bëgg a changé bi boo paquet seng jarul dara dégg nga junni lay jar ak 4500 original bi fukki seng ak ñaar. sama waajur lañ yónni moom lañ dele mag ñi délégué woon mu jënd seng yi bantiroon yi mu ko daaje ma ngi ko wute joon lam-lam kër Baay Jiite Faal boo bantiroon bu góor mooy jar ñaar fukk ak juróom bu jigéen bi jar ñaar fukk biñ ñëwee ñu daaj seng bi mu tiim ko rek ñetti weer ñeent dëkk bi lakk ci déwén si bi loolu bi jotee mag ñi daal comme seng yi gisoon nañ ko rek ñu daal toppandoo ku ne dem jëndi ay seng ñëw seng sa kër dëkk bi weex tàll daa di mel ni li leen sëñ Modou waxal bi mu nekkee néegi ñax néegi ñax la bi biñ ko defee seng seng yi daal ciy topp seng yi bàyyi ne fi dëkk bi nit tabaxu fi birig nit tabaxu fi birig ba bi Alaaji Ndaama ñëwee ba fekk na fi ay mool nag fekk na fi ñu fi tàmbalee def ay mool ba jéem ma ngur yi waaye bi mu ñëwee quatre-vingt-cinq lii ñu dëkk bi daal di koy tabax natt néegu yàlla bi ne xaad ne xaadimu rasul fii soxna xat loo ne ni kër sëñ Touba ginnaaw bi laa tàmbalee gis bâtiment maanaam bi mu nekkee fi mu nekk bi nekkee bâtiment la bâtiment tàmbali am ci dëkk bi bi mu gënee taaru gis nga ni dëkk bi mel kenn waxu ko yaa ko gis kon waxu sëñ Modou jooju moom itam day mel ni am na ay ga du dëgg léegi nag bi alaaji ndaama ñëwee moom ci gàttal foofu la fekk dëkk bi boobu nee naa la ci sayir boo fi toggee fukki kilay ceeb ak juróom de soo ko dee joxe boo wutiwul ñeneen dina des ñu ko lekk du fi ne bi fi ndaam yi ñu laax 85 décembre 85 ñu ko lekk du fi ne te fii ñu toog tey di wax boo toggee cent kilo façon sa kanam boo koy séddalee boo mul fayda ñëpp du ko mus kon xam nga eh, yokk na lim yokk ñëpp ci teg seen bët bi mu ko defee tabax it ni tabax yi yokkoo ci dëkk bi ni mu changé ni mu mel ñëpp ci teg seen bët kon loolu bokk na ci loo xam ni xam naa ko ci te loolu làmbatuuma daa ko dund fekke ci lu bari ndax bi mag ñi bëggee gàddaay dem ca tali ba ndaxum ndox man nii nag du sama jëmm ji woyof woyof man la bàyyi mbay faal benn bàyyi alaaji ndaam nga xam ne rakk baal saan la man la yónni ni ma demal nee ko dañuy toxu ca tali ba ndax ndox mi tubaab bi dañ cee mayoon muy ndoxam ICS mi baa ñuy baa ko waxee ndaama daa mel ni ko gëlëm ni ma toxu occ fa mag ña nga xam ne moo gëm mag ñi mu ne toxu occ fa mag ña loolu di ëpp naa xalaat leen nañ ma xaar bi ma ñëwee ma wax ko mag ñi mag ñi daal di gayaax toog ba mu ñëw mun leen damaa mën a waaj rek waaye wutal naa ay bunt bu yàgg pour bëgg a defar place Mame Ousseynou bii nañ ma dimbal rek ngeen toog fi ndox mi fu ngeen mën a dem jéem ko xëcc ci tiwo bu andi ko mooy gën a jàppandi dem di gasaati teen mag ñi bañ a werante moom ñu toog ba yàlla dogale mu la nag di kër këri rek di kër këri rek boole pas-pas ak jom ak yéene tàmbaleewu koy moye de day def lu mu for indi bañ a dara oto bu mu yor yëpp sam sëf na lay mool sëf na lay seng sëf na lay ardoise lu mu gis rek for indi lu gis for indi rek ba yàlla fekk ko ci njaboot màgg mu laxasaay njaboot gi gis muy def noonu te lépp di lu baax mu nàmpatal leen ci ba njaboot gi nàmp ween mu neex ñu nangamti ko topp noo ko di di wéy ci waawam di wéy ci waawam ba bi yàlla dogalee mu tale diire bu li muy dund mënuñoo xam sax gone yi mën nañu wala mënuñu nit ñi dañ na alaaji ndaama alaaji ndaama rek waaye bi yàlla dogalee tële am te taxawaay amul nag lañu xam ne gone yi kon wanan na leen yoon yi xam nañu ko waaye bu fekkante woon ni lu yaatu la dama ko tënk waaye bu doon lu yaatu dinaa la gën a saraal ci biir ay roq-roqaan yoo xam ni di xam ne dëkk bii dëkk boo ko tëkkaleel ci saayir boo sàggantul ñu am la ñu waree te li ma la wax lu wér la li ma la wax lu wér la bari na dëkk boo koy tëkkaleel mën naa am taalibe yaa màgg yàlla jox leen wërsëg rek ñu tey tuddee nañ dëkk bi Touba dëkk sàngam tey tuddee nañ suñu dëkk Touba dëkk sàngam tey tuddee nañ suñu dëkk Touba dëkk sàngam waaye bii moom ko tedd ki ci moo ko joxe turi ci làmmiñam boppam ba dégg nga ñu sanc ko tuddee ko Touba man nag ginnaaw Touba Mbàkke gii xaw ma yi ko mag ci Touba yi sëñ Touba tudd xaw ma ko dégg naa ay Daaru Karim Daaru Salaam Daaru Muxti Daarul Manaan Daaru Xudoos Ndindi yee yëpp ay dëkk murit la yu taarixu waaye bii moom ku tedd kee joxe tur benn nit du la ne maanaam nañ ko tuddee Touba Fall kur dañ naa sëñ Touba ko ne tudde ko dëkk bu tedd ba kon dëkk bi wax dëgg yàlla ni ko Alaaji Ndaama suuxatee ba mu si fii ñi ko wuutu yal na leen yàlla may ñun tam kartan akom xel ak fan wu sutu Alaaji Ndaama jàpp naa ni li fi ko Alaaji Ndaama bàyyi bu bu yàlla guddalee seen fan ak seen pexe ak seen yéene mën na am ñoom itam yàlla na yeex bis dee ñëw ñu xam ni eh, desewuñu ko mu réer ci fi ñu toll yàlla na leen yàlla aar musal leen ci ndog mboolem famille bi yëpp dinaa di wax ne alaaji ndaama daa gëm yàlla gëm yonent bi gëm sëñ Tuubaa gëm mag ñi te li mu wax dayam fu ma koy teg maamam Ablaye Fall mi nga xay mook sëñoo sëynoo bokk lépp lu nit di bokk ak nit ci bokk denc ñu ko fii way juróom wu denc ñu ko fii te moom juddoowu fi te ngëm gëm bi mu ci am ak pas-pas bi mu ci am ak taxawaay kenn ku ko def ci saw jant gi yëpp fii ba Touba la laa ci saw jant gi yëpp kon man ndaama ci googu wet nangu na tëkkale waaye nanguwul dendale pour man yàlla na yàlla seral ya xam yàlla na xippee ajjana moom altine la fi xëye wan ñu ginaaw ñibbi ndakaaru ñi bëgg a tabaski talaata ba di tabaski ci alxames la ko feer bi nuyu ñaari at ba dugg benn weer yàlla jëlaat ko ci altine ci suba ba ci di màggalu daaru xudoos altine ci suba ja ko yàlla wooye ba ñu ko dencee dañoo gont fanaan Tuuba ni suba la màggal daaru xudoos moo tax ma ni altine ji ndaama xëyee fii jëm ndakaaru ak altine ji mu del siwaat yi fii ci takkusaan waree nañu lool fi nun ndax ba muy dem xel mu dal lanu bàyyi leen waaye bi mu nee jalañ altine ci tàkku saan fukki fan ak juróom-ñett ci tamxar bi ci fër-fër lanu fekk ndax xel dalul ku ne naa luy lii kan moo koy wóotu ndekete yàlla lim denc du jeex du ma tudd waaye yàlla na yàlla doole dëgëral ñi ko wuutu ndax ñoom itam ñu ngay roy tànkam yu baax ya ak jëf yu baax ya seen kéemtalaayal kartan nga baal ma ma tënk foofu eh, te ngeen xam ni ndaama toujours nit boo nee néeg diw mooy ku sampul kër waaye boo nee kër diw mooy ku am ay soxna ku ne ne fa moo tax ñu naa kër ga ñi ko yàlla booleel yàlla dal ko ci sutura may ko lu jafe yooyu ci dugg sax waaye li ko yàlla may yomb ndax nga mën a dajale ay soxna yore leen doo doo wekki doo def nen lu waay def nga supporté ko muñ ba yàlla jeexal ko loolu vraiment royukaay la ci yàlla na ko yàlla yërëm yàlla bu yàlla tas yakar njaboot gi dëkk beeg tund wi yéene jëm amoon ci tund wi ak njaboot gi am ko ci Sénégal yàlla na ko yàlla fay lu gaaw njortam barke sëñ Tuubaa ak Cheikh Samba ngeen baal ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuhu ginnaaw bu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sant bu baax Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di jërëjëfal Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal sunu borom guddal fanam te wéral ko ci daraje Serigne Saliou Mbacké sama sang ba borom njàpp ndal ak njurul rek xabbaan ak xay ren nag ñi ngi ñëw ci Touba Fall Mboxeer mi nga xam ni ñu dend ak soxna su tedd si nga xam ni li dox diggantam ak sëñ Massamba sorewul muy sëñ Modou Faty Khary sëñ Modou Faty Khary kenn ku ne xam na ko sëriñ Masamba ko jur sëriñ Masamba seexul xaddim ñu ñëw nag ci pàkk bu barkeel bii pàkk bii nga xam ne Baye Ousseynou moo ko samp waaye Baye ma rafetal ko jëmmal dëkk bii ba dëkk bii ànd ak tawféex ànd koog njabootam mu rafet lool ba àdduna gépp fii li ñuy ñëw di gàmmoo ci darajey sëriñ Saalix Mbàkke sama sanga ba pàkk bii baay ndaama su gisanteeg sëñ Masamba ak baay Useynu duñ ko mere de ndax dafa jëmmal dëkk bi yokk dëkk bi te dëkk bi wàññeekuwul dund gu mujj baay ndaama ñeenti saaba yi àndoon ak rasulillahi la baay ndaama tuddee kenn ku nekk bis bi mu tuddee kenn ku ne bis la baay ndaama waaj yàlla na gisanteeg rasulillahi yàlla na giseen teeg rasulillahi ñu dend ak doomi sëriñ Modou Fatou Khary sëriñ Modou Fatou Khary ku ne xam na ko ci maandu ga ci yiw ga ci wilaaya ga ci tabe ja ngir jimmee Seydina Muhammad ku ñu musaana yeew dof yóbbu ci sëriñ Modou Fatou Khary mu joxoñ dof ba laaj ñampeeg saabu dem sangu ji kooku way juru soxna si moo ko doon def loolu nag tawféex la ci ñun ñun ndok bi ñu bàyyi ndaama boolee ci pàkk bi moo waral bëgg sëriñ saaliw dootul gàmmoo fenn fu dul Touba Fall Mboxeer bismillaahi barke sëñ Touba barke sëñ Masamba barke sëñ Modou Fatou Fari sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér barke yonent bi fii nag mooy kër soxna Maguette Mbacké mu sëñ Modou faatu Xari mu sëñ ma sàmba mu sëñ ma sàmba doonoon nag soxna Alaaji ma Faal mi nga xam ni mooy nekk moo nekkoon ci dëkk bi doon fi taalibe sëñ ma sàmba di fi def lu baax lu baax lu fi nekk tubaarkàlla macha allah moo ko fi def di sët ci maam Ousseynou Fall mii xaboom bi nekk ci pénc mi maam Ousseynou moo jur soxna Oumy Fall soxna Oumy Fall Diouf soxna Maguette Mbacke mii toog sëñ du faatu Xare di baayam sëñ Massamba di maamam gàmmu gii ginnaaw yàlla ak yonent bi sëñ Touba moom mii da cee alaa daw mewu ci gàmmu gi da cee alaa daw mewu ci sëñ Massamba alaa daw mewu ci ci Mame Seynu mii tëdd ci xabru bi alaa daw mewu ci alaaji Ndaama mi nga xam ne moo defar dëkk bii at mu nekk jàng ja gàmmu gi tubaarkàlla macha allah dara du fi manqué dara manquéwul ci gàmmu gi loo bëgg a gis rekk ci gàmmu rekk boo ñëwee fii di nga ko fi fekk te lépp yàlla ak alaaji Ndaama Faal moom doomam yii nag ñoom it mujjewuñu pusa bi mu réer di alaaji Dan Faal mi nga xam ni moo di taawam ba ay rakkam ba ci bàcc bàcc mi ci gën a ndaw ak xaadim mi nga xam ni ñoo ci gën di gone ñoom ñëpp bàyyi wuñ seen loxo fu seen bàyyi tegoon tànkam rek teg nañ fa seen tànk ñu jigéen ñi noonu seeni soxna noonu ñoo ngi leen di gërëm nag di leen sant kàddu gi nag maa ngi koy jox sëñ bi ndax man manewu ma sax wax nga xale yi nag yal na yàlla guddal seenu fan ñun ñu suut seen baay bu baax boobu fan tëdd sa barke bi bàyyi ma faal mi tëdd fii yal na suuf oyof ci kawam yàlla na yàlla yokk leeram ci biir bàmmeel Alaaji Ndaama yàlla na xippee ci àjjana ndax lépp lu am ci bi rek bëgg dëkk bi moo ko waraloon tey këram dawal oto ñëw fii bañ a joxe dépasse ndax ndax ñëw Touba Fall muy tabax dëkk bi otoom bi sax maal bi ay móol da da ko ciy def te yendu di ñëw bu ñu génnee tukki lum xool Dubaay danaa bu ma yàlla dimbaloon ba ma yóbbu ko Touba lu mu gis ma faafaa la koy bi nu mujj yàlla may ma xaalis taxaw ab yoo Touba Fall yóbbu ñépp màkk loolu rek la la ñaan yàlla tax nu waral di fi daje di siyaarante di ko ñaanal yàlla lépp lu mu sonn nag ndax bëgg njaboot geek bañ kenn sonn kenn sonn ginnaawam lépp sedd ñu koy ñaanal yàlla oyof suuf oyof ci di ñaanal nax max bandal mi ma fa bàyyi taxaw na taxawaay bu bu ñu toogee ma ne ko leen rek a manqué ci kër gi xanaa jëmmi borom kër gi waaye dara manqué wu fi lu sa baay bàyyi woon daa yokk mu ànd ko Moodu rakkam ji ak Kumba ba ci rakkam génn kër gu ne borom dana fa jóge mu yëngu ba mu des kër laaj ndaam keroog ba fi jógee la jàmm gën a yokk jaraa gën a yokk daan balaa yóbbu këram dara indi na ko ci gi jaaxle wuñu dara ñoo koy ñaanal yàlla lii mu lebal waajuram man de waajuram moo ma toog fii ñu indi ay ndog mu toog ba yàgg bu jooy man ko laaj looy jooy mu damaa xam ni kat lii may def man da dan ni ma ko gërëme bu ma wóoroon ni sama baay gërëme ba nii man ko bu la sa baay gërëm woon ba nga di ko gërëme ma ko wax ma dégg nag ma leen di sant di ñaanal yàlla ba ma juddoo ba ñu jox ma doom sëriñ Touba ma jóge fa ñëw ci loxoom su ma dem fenn te neex ko booba tey maa fi ba fi seen baay jëf lañ lam fi bàyyi woon lañ ko yokk waaye wàññi di leen ñaanal di ñaanal seen rakk yi nag niñ toppee woon seen waajur moo ngi ñaan seen rakk yi topp ñi yàlla bu seytaane dox seen diggante ci barke Serigne Touba yal nañ ko teewee na gën déwén asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bu nu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi di bu baax Serigne Saliou Mbacke Xaadimu Rasul sama sang ba ne di julli ci sangu-sangu ya Seydina Muhammad alayhi salaam ala rasulullahi sallallahu alayhi ne mu ne kër gi ma suma sañoon maa ko sanc ndax ne Baye Alaaji Ndaama Faal ba mu jógee seet ajaratu Màggat Faal ba nëgë ni tàggoo ma ak moom mu mel ni mare ma mo jur mu bëgg ma lool fonk ma lool waa këram yëpp bëgg ma ñëpp fonk ma ajaratu maam màgget faal nu bokk maam sooda sàll nu bokk maam màgget mbàkke di di yaaram bi mu ñëwee waroon a xeeb nit ñi yebul kenn ñëpp la àndal kër gi ñëpp la di julli ci yonent bi baay alaaji ndaama yàlla na sunu borom fayal nu ko li def ci lu baax ci àddina yàlla na ko ko yàlla fay ak yonent bu tedd ba ak Serigne Touba mi doon liggéeyal te Serigne Touba ku ko liggéeyal fayee ko ku ko liggéeyal bëccëg mu fayla guddi loolu nag tawfeex weesu loolu ne benn naqar la ci moom keroog biñ ne bàyyi alaaj ndaama faal wuy jëna suñ borom ne loolu dong la am ci lu ma naqari waaye naqar wi nag amul solo dama xam ne bàyyi ndaama lim liggéeyal àdduna liggéeyal ko yàlla liggéeyal ko rasulullahi liggéeyal ko yàlla dina ko fay bu soobee yàlla yal na yàlla taas ci barkeem du njaboot gim fi bàyyi yal leen yàlla gën a dëgëral te juboo te ñu gën a juboo nit daan Muhammadan ni mu jiitoo xale yi topp ci ginnaawam kenn kontaru ko ci kenn yóbbu ko ci lu ñu def wax koog moom lu ñu def def koog moom ak Moodu Mbàkke mi nga xam ne mooy seen mag yàlla na leen yàlla gën a dëgëral sama nijaay nag ni mel ci man sama benn nijaay melul ni bàyyi ndaama mel ci man muy dan muy Moodu Mbàkke ak dan lu ne lañ may defal nee kër ga amuma leen lu ma naqari ca kër ga te kër ga tubaarkàlla li kay bañ ma keroog bi keroog biñ ma tàggee bàyyi la am lu ma waaye Baye Ndama nag ku ko ñàkk am lu bàyyi ko ci yow ndax Baye Ndama siggil na lislaam Baye ndaama siggil na askanu Seexul Xaddim Baye Ndama pàkk bii ku fi dugg di nga xam ne Baye Ndama liggéey na yàlla ak rasulillahi Baye Ndama nag kuy wax ci moom fii la ñuy nekk bu suba te du jeex kon ñu yëkkati kàddu gi jox sunu wayjur wu baax wi sunu wayjur wu tedd wi yal na yàlla guddal fanam kon yaay bisimilah sama yaay ne mi ngi nuyu mbooloo mi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom delloosi leen fi ay ati at may leen fan wu gudd te ànd ko wér maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant seen wayjur wu baax wa nga xam ne lii lépp ginnaaw yàlla ak yonent moo ko fi def kon nag lu def tey dañuy door rek yàlla na sunu borom mottili mu ñu sut seen baay aw bay baay ndaama dese barke bi yàlla bàyyi nu fi bàyyi leen fi seen seeni rak ci barke yonent bi ñu ngi ñaan ci yàlla sunu borom defal leen jàmm defal ko bépp jullit sant nañ leen gërëm nañ leen mag ak ndaw yal na yàlla dolli leen jàmm ci daraja yonent bi ñu ne nag tey ci gàmmu gii yàlla dafa dogal sama baay alaaj naar mbay diggante ak baay ndaa ma àjjuma gaaw la woon ma dëgmal nag bis boo xam ne mook sama baay laa ko boole baay ndaa ma di ñaanal alaaj naar mbay ak baay ndaa ma le 19 ca waagu ñaay maa ngi koy yëgal njabootu baay ndaa ma gépp di ñaan nag sunu yaay jii ñu dendal yàlla na ko fi yàlla bay yàlla na ko fi